Soxla kan ñoo ko téye ci hôpitalu am na si juróom benn weer ci ko tubaab yi téye ñu koy jox garab ba mu ponkal suñu sa sa garab gi dafa dañuy bañ mu laal garab gi loolu ko ñu ndonge lakk garab gi mu laal depuis daaw. garab gi décembre daaw. décembre daaw. waaw. daaw nga ko yónnee ut garab bi mu jox ko ci janvier bi fi décembre daaw waaye bi mu ko ba tey ñun ñun Belgique ñoo ko fa dàq ñun ñii ñoo ko jaxase tubaab yi tubaab ko Belgique waaw mu dem Allemagne ci benn xaritam xarit muy daanu di daanu di daanu ñuy moom xarit bi da ko daan sànni ay baat foog nga kii gëmul la kii ne ko sama juróom-ñaari maam amul demul waaw après ci la ndaw si di daw mu ñëw fii Suisse waaw ñoo ko yàqal këyitam ñu téye wërsëgam ci wërsëgam la ñuy dundee ku amoon wërsëg la taaru taar taar ñu gis ko rek topp ko ñu gis ko rek ko yéen la ñaan yow la kan ah. naa sama tur. yow lan nga. xàcc naa sama tur. hey lan nga. Thierno Thierno wala xale bu jigéen bi buy seetaan sa vidéo yi ñun dañuy lakk. yéen da ngeen di lakk. waaw. dañuy lakk hmm. lakk suñu pouvoir di wàññeeku. vidéo day nar day nar bis bu nekk nekkoon leen ci Facebook bi ndax dugal ngeen vidéo yu bees sax seen vidéo yëpp xale bu jigéen bi seetaan ko waaw waaw ñun dañoo sonn ñoo sonn xale bu jigéen bi bi muy jógee Allemagne dugg ci train bi ñëw ba ex Suisse mu dese ko benn arrêt pour mu wàcc ñun ñu yëgal police yi ndax comme un sans papier la pour police yi jàpp ko dañoo hmm. def waaw léegi nag gis nga bi ma jógee Allemagne si suba si daa laal sa garab bi su bi ma jógee Allemagne ngoon ku di la waroon départ ci ngoon bi ma sanguwaat sa garab gi ne garab gi ku di laa ko a dama koy sangoo si ngoon gi comme damay dem Suisse pour que tu police yi bañ ma jàpp gis nga ñun daa ñu ko Suisse mu woo rek ko teg teg benn arrêt ñun ñu yéegal ñu yéegal yi pour ñu jàpp ko pour ñu refoulé ko lycée dañu ñëw laaj ñëpp seen papier même tubaab bi dañ leen laaj seen papier ñu ñëw ba ci moom ah sa garab yi gëlëmal ko yàlla gëlëmal police yi ak sa garab yi mu laal police yi ñëw ba tiim ko ñu gisuñu ko ñu romb ko te gis nga bi police yi duggee xam nga nu mu doon wax barki kenn mu lay sa barki kenn mu lay sa barki kenn mu lay sa yàlla na ma sauvé ci garab bi yàlla na ma police yi romb waaw yéen ay saay saay ngeen. bi ñaata ngeen. ñun dañoo bëri woon ñu bëri taw nañ cause ah. de lan. à cause de lan. Ah. Ah. Belgique Belgique. man ñu bëri daw nañ à cause de garab bi. garab bi ak dëmm dañ ko naroon a lekk. dañ ko na. am na ah boo leen ko lekkee seen pouvoir day yokk boo leen ko lekkee seen pouvoir bi day yokk pouvoir ah, day yokk man dëmm ji ne la ah dëmm ne nga yow noo tudd man ah, damay lekk nit di dundee dret yow da lekk nit di dundee dret yow noo tudd waaw ah, rakkam ñun noo ko rakkam rakkam rakkam ci bi daf dafa feebar mu ne yóbbu leen ko ci Cerno moom rek moo ko mën a faj rakkam yi ñun ñoo téye règle deretam bi juróom-ñetti weer bi su lekk